paaka bii ko kooku suñu cosaanu la ñun fakka na ko suñu maama ni ñu koy defal dégg nga suñu maam loolu mooy seen macc tam bi ñu suñu maama def ko sax moom amul fay ba atte bu jeexee ba atte jeexee ñi may ko tuuti dara léegi nag dem na boo xam ni jamono muy dox muy dox muy dox muy dox bu ma koy commencé fay xaalis dañuy am tuut xaalis tuuti bu njëkk sax amul fay. ñun ci la ci ñun parce que paaka bi bu ñu ko tagg ñi suñu maamoom ñëwee koo tagg tagg ba kuloo ak ki wattu kii tagg ki wattu kii mooy tagg jaay ko ki wattu ci saanam bi fu lay awsa commencé foofu la ci saanam bi di awsa moom di ci saanam wattu ab paaka bii ñu ko xam boobu lay xam moo ko tagg boppam moo ko moo moo koy wattu i yonent bi sallallahu alayhi wa wattu na ko ci paaka bi kon nga xam ko yàgg na tuuti mais paaka kii ci ñun kii mooy paaka kii kii aska pour aski aski mooy wattu daggee nit ak euh, affaire bi bu daggee euh, mën na wàll keneen feebar. ñu ne sax ñu ñu ne sax eh, ma yàlla ma dëgg ci nit yi ah? nga gis nit yi dëgg na ko keneen dafa yàggale kii yonent bi Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo ko ñaani moo ko ñaani ku am xam-xam bu seete ko ci téere de koy gis ko boo ko ñaane ne ko kii balaa feebar bi ñëw du sax yonent bi xam ne ko mu ne ko kii du am feebar kii du am feebar ci ko ko wala dëgg bu tagg kenn kenn du am ñaata ngay ba pare alam bi bu ñuy watu loolu lañ ko defal pour ñuy bàyyi am picc pour bu bàyyi am picc bii mooy alam bu njëkk sax mu eh, eh, eh, du wattu amul saabu dañuy wattu rek amul saabu ba ñu commencé jël ay saabu ci saabu suñu saabu ci saan comme yi saabu bambara bi bu ñuul bi kon loolu la ñuy wattu bu njëkk ba ñu àgg ci saabu toile bi. feebaru bi ñuy wax ak yooyu yëpp. waaw boobu amul woy boobu amul. lan amul. wala ko ci feebar ci ci yi. wala boobu amul wala bu ñuy commencé wattu kuy kuy wattu mooy mooy mooy defal bijin bi bijin nag la njëriñam bu gaañu bo boo nga gaañu boo si digg bi miti bo sa bopp mi miti bo sa yaram bi foo lee miti mën na la ko defal boo amee eh, gaañuloo sax boo amee dara bu dee bi ci biir yaa ngay liggéey sa dara bi dee bi ci biir bu sa samp bi mu dundale ko. man dama doon football ku xam footballeur xam ne ni que genou mooy sa problème mais cheville donc soo da nga am ay tëccu tëccu euh, te chaque année day ñëw parce que kii la quoi euh, euh, hématome lañ koy wooyee mais kii la deret bu way la bon deret deret bu way amul lu ko mën dindi lu dul gàjj ko. kii sama mag moo ma ko woon sax man man bu njëkk ba li ñuy wax euh, benn garab bu ñuy wax ci tubaab ni en gélule moom laa doo jël su ma ko naanee rek day sedd day c'est pour quelque temps après mu ñëwaat même pas pas quelque temps quelques heures même pas léegi nag sama grand million sama grand frère mu ne ma léegi da ngay dem seeti mu yóbbu ma si benn gàjji taaw yi ba ma demee nag ñu ñu kiyal ma ko et ma gis si tan u baax parce que naa toog au moins un un à deux ans yoo xam ne du ñëw mais ça revient toujours.